ak 7TV mbokk yi asalaamaaleykum dal leen nag jàmm ci xibaaru maraxi may am mbégte di ci feggoog Suzanne Deme Suzanne nii daal may lay fay bu baax Germaine Diouf ñu itam nii teewlu ay dem ci li gën a fës dina ci bokk nguur ak Sénégal ni xibaar yi indi xibaar yu neex bokk na ci woyofal jóge dund gi askan wi na ñi nga xam ne seen loxo jotut seen ginnaaw teq nañ te nag lu bare bare waaye bu ñu sukkandikoo itam ci taxi ñu tegoon ci ciment bi tolloon ci ñeenti téeméer nal mu nekk xabaar woo xam ne askan yëpp daan nañu koy rafet euh, rafetlu waaye itam euh, sàkku rek ci ñëpp ñi nga xam ne dañoo séq wàll wa ñu daal di rek jëmmal ndogal yooyu nga xam ne euh, rot na addu jëmale ba tey ci pétrole bi nga xam ne daan nañ koy tàmbale jëfandikoo ci eh, Sangomar jàppale ne Lex Africa moom daan na ci woo askan wi rawatina eh, nguur gi ñu daal di gën a yokku nag wàllum saytu gi bu ko defee rek yëpp leer waaye itam sàkku ci njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay mu daal di càmbaraat contrat yi bu ko defee itam Sénégal mën ci am wàllu wu yaatu. addu itam jëmale ci campagne électorale wu Mauritanie ñeel jogante ñu ci réew yi jàppee ne ni ki tey jii dañ ko fas yéene door ci min wi Mouhamed Ould Ghazouani nekk li ci réew ma nag moom dafa rek sampaan ndëndëm juróom benn doomu aadama yoo xam ne itam ay wujjëm lañ ci jongante gi ñoom itam bokk nañ ñaar ci ñoom nag nekkoon nañu rek ay candidat yi weesu waaye yeneen ñeent yi nag ñoom seen daanaka ñu yees lañ eh, ci rek jogante wi nga xam daa ñu ko amal ci ñaar fan ak juróom-ñeent ci weeru juin mbokk ponk yi gën a fës leen taaxirloo ñu mbokk yi dañuy door a xibaar yi wax ci gouvernement bi nga xamante ni jël na dogal ni ki tey ji wàññi dund gu segg ngir noppal askan wi am na nag ñu jëfandikoo yu bëri yoo xamante ni wàññi nañ seen njëkk ci mel ni suukar si ceeb bi dëwlin bi naka noonu mburu ñuy ndekkee taxe itam jëm ci ciment bi nekkoon ci ñeenti téeméer daal dañu koy neenal loolee itam la ca toftal bokk na ci engrais yi nga xam ne euh, bëggoon nañ ko rek daanaka jébbal baykat yi yeneen yi ndogal itam ñëw ci wàllum télécommunication loolu yëpp nag nekk njëriñ ci way jëfandiku yi dinañ ci euh, ñëwaat laata xibaar yi du buur ba tey euh, ci mbir moom la ñuy des laaj nañ ci askan bi seen xalaat ñu bëri xam ne ay borom kër lañ kontaan nañ ci bu baax a baax ne ne nag mbir mi dina leen noppal ndax euh, li ñuy daj ngir dépense kër yi métti na. jëriñu dénk wàllum koom di Cheikh Diba moom itam daan na ci àddu ndax bokk na ci kilifa yi noonu jàkkaarloog taskatu xibaar yi ki tey ñel yooyu lee dund xam ne woon nañ ko. wàññi jàpp leen ne eh, li nga xam ne rek moom la Cheikh Diba daal di fësal ci boobee xabaar moo di rek nañ fexe ba nguur gi teg ay ponk yu yees yoo xam ne dinañ gën a tax daal eh, ba loolee ñu daal di daanaka woyanal nga fakk état. ceeb bi cher woon na ah, ah, dawlin bi macha allah marché bi moom boo demee moom ndugg sax doo ko laal rawatina ak tabaski nii bu dee wàññi nañ ko nag moom sant yàlla la. ak ñu mère de famille ñu ñoo dëkk ci marché bi ñu dëkk bi xam nañ xew ci biir dëkk bi suñu ko wàññi loolu tam suñu arrangement lay doon ndax ñun loolu dañoo sonn ndax góor day xëy dem ñu ñooy des ci biir kër gi instant yi ceeb bi seer na soo waroon sóor ñaari kilo da ngay sóor kilo liibar ndekki rek frère añ soog a ñëw moo tax kër yu bari léegi ñaari repas te bu njëkk ba ñetti repas lañ daan def añ reer ndekki mais léegi kër yu bari léegi ñaari repas la ñuy def ndax boo dee xool dangay liggéey sax parfois ba weer bi dee mais boo xoolee li ngay gagné ci sa place boo calculer bénéfice bi ngay am du ko mën li ngay jënd ceeb fi nga koy mën a amee sa dooma sa doom feebaree li nga koy faje fi nga koy mën a amee léegi bu fekkee yow mënoo jaay loo xam ne mën naa fay place bi ak sa kër nga luyee waxaguñu sa lekk sa dundu kër kon am nag xam nga ñun daal ñoo ngi kontaan ci Diomaye ak euh, Sonko koo wàññul luyaas wàññul ko dund rek lépp day baax si moom waaw mu mën a fay école xale yeeg yooyu yëpp dëkk bi dafa metti ceeb ak diwlin kooku moom ku ko wax ak ku ko waxul ñëpp la sonal. dañuy dimbali njaboot yu bare bare bare bare ndax njaboot yu bare bare bare bu ñu tàngalee bu ñu toggee añ daana la ñuy tàngal réer kon bu ñu wàññee lool rek daanaka li ëpp doole ci eh, ndimbal bi daanaka ñëw na. ñoo dellu si euh, ci li leen doon junj sànk ci bopp xibaar yi di gouvernement bi nga xamante ne daal dinay euh, jël dogal ngir wàññi njëgu dund gi bokk na ci njëgu suukar si euh, ceeb bi diwlin bi naka noonu mburu mi. ruñal itam ciment bi daal lañu ne nag taxe ñu tegoon te kawam tolloon ci ñeenti téeméer. dogal yi ñu jël ñeel wàññi dund gu cher gi nag ñu ngi jëm ci ñetti fànn bu ci njëkk ñeel wàllum lekk gi. nga xam ne bokk na ci ay denrées yu ci mel ni suukar si ceeb walla sax mburu bi. suukar si wàññi nañ ci fukki dërëm. bu dee ceeb bi wàññi nañ ci juróom bu dee mbiru dëwlin bi bi nekk ci bidon yi wen euh, ñaar fukki liitar yi wàññi nañ ci ñaar fukk. beneen fànn bi nag jëm ci wàllum dëkkuwaay nguur gi sukkandiku ci njëgu siman gi ak itam jotinu suuf si. amoon na taxe bu tegoon ci. Euh, tonne bu ne mu doon ñeenti téeméer deux mille francs dañuy ne taxe boobu dañ koy suspendre. terrain yanu nangu woon sam nekkoon nguurkat gouvernement bi nee na da koy delloowaat ci askan bi dellowaat ko ci askan bi jox ko promoteur yi ñu ñëw tabax ci moom itam ay dogal yi jëm ci wàllum xarale yu bees yi nga xam ne bokk na ci dundinu doomu adama yi waxtaan nañu ak opérateur yi ba nangu na ñoom itamit wàññi li ñuy jaaye seen forfait yi déjà gis ngeen ko ci Sonatel ñeneen ñi tam ñi ngi ci. ngir sàmmonte ak ndogal yooye nag nguur gi def ci boole ay mesures d'accompagnement. contrôle économique dana gën a nekk ci terrain bi waaye nag danoo bëggoon askan wi population yi xale yi nekk ci quartier yi association yi ñu jàppale ci nguur gi. communes yi gox-goxaan yi ñu def ay magasins témoins yoo xam ne ne dana ànd ak banques yi jox leen ñu jënd produits yi nga xam ne ne mooy produit essentiels yi ñoom ñu koy jaay leen ko war a jaayee. leeral yëf yi ba nga xam ne ni butiku koñ bu def leneen <clears throat> danañ gis ne du loolu la war a def te loolu lu ñuy liggéey la léegi. dogal yi la nag laata ñu koy doxal faw rek ñu amal ab ndaje ak lii di conseil nationale de la consommation ci ay bés bi ñu jëm. Ousmane baa ci dund googu ñu wàññi la ñuy des gouvernement bi nas na ay pexe ba ut koppar eh, ngir rek mën a subvention subventionné njëgu dund gi bu ko defee ñu oyofal ko askan bi jëriñ ñu dénk wàllum koom di Cheikh baa moom itam daan na gis fësal bëtu nguur gi bokk na ci xool pexe yi lal bu ko defee daal ñu mën a woyofal dund gi bu baax ci askan bi dégagé nañu une enveloppe de cinquante trois milliards mooy juróom fukki milliards yu teg ak ñetti milliards yoo xamante ne nii ci wàllu ay impôt ak ci droit de douane yu waroon a yu yi bi moomoon mu renoncé ci maanaam mu bàyyi ko ngir prix yi gën a mën a jàppale waaye dëgg dëgg dëgg liggéey bi faw ñu ñu xam ko d'abord buñ ko xamee faw ñu nangoo dox jëm ca mooy li nga xam ne mooy subvention yi nga xam ne buñ ci buñ ci jur buñ ci jógul dina sànq suñu budget bi ñu fexe ba subvention boobu naka lañu mën a orienté ko ba mu dem ci dëgg ki nga xam ne mooy sénégalais bi ko soxla. ñu wax euh, ci pétrole bi nga xamante ne tàmbale nañu ko gis ci réew mi ñu koy produire fi mu toll nii ki nga xamante ni kon euh, moo jiite Alex euh, Africa nee na nag faaw gouvernement bi rek li nga xamante ni nekk na fi ñu fexe nañ ko aaree sàmm ko ba nga xamante ni bu ëllëgee du am lenn luñ ci rëccoo. Elimane Kane moo ko daal di jiite moom mi nag na sàkku ci kilifa yi ñu daal di teg mbir mi ba mu leer nañ bu ko defee itam askan bi jotee ci xabaar yu leer ñeel boobee pétrole ñu xam daal lan lañ koy jëfandikoo ak lañ ca bëgg ak fañ ko bëgg a yóbbu loolee itam nee ñu dina tax ba booy jëfandikoo yi nag nar tee seen bopp. est-ce que pétrole bi ngay am léegi di nga ko mën a dugal mu wàññi sa coût électricité. mu bëree ay laaj yi nga xam ne nii njiital Legs Africa mu ngi ci xaar nguur gi ngir mu indi ci ay tontu gannaaw bu ñu tànqee lu petrole bu njëkk muy woo njiit yi ngir ñu joxe xibaar bu wér ci li mu baril bi ñu mën a am bés bu ne. parce que euh, buñ ko defee euh, contrat bi dafay wax bu fekkee ne ma agul cinquante mille am na lu état di am mais lu bari trop. bi hmm? euh, gën di bëri quinze pour cent lay doon wala vingt pour cent bu demee ba dépassé cent mille baril et cetera day gën di yokku. mu leen di woo it ngir ñu fësal anam gi nga xam ne ni moom la Sénégal bëgg jaar ngir amal production nationale am. te la koy gérer est-ce que day yow da booleeg production global bi. ñu dem raffiné ko Europe wala feneen comme ni ko directrice su Wursaad waxee wala ñun dañ koy jël raffiné ko suñu bopp Saar wala Nigéria wala xawma parce que SAR aussi il faut ñu xool est-ce que SAR gouvernement bi waajal na ko pour mu mën a raffiner li nga xam ne moo fi nekk. Ah, bu ñu sukkandikoo ci Iliman Kane ngir mën a jaarale mbir mi yoon faaw ñu boole ci bépp ma réew. bu ko defee. xëy na dinañ am yaakaar ne li nga xam ne ne mooy intérêt askan wi dina am ñu ko leen fa toogal di ko saytu en plus que yéene président boobu bi nga xam ne moom la am donc loolu lañ ko lañ ko ñaan. gannaaw baril bi nga xam ne ni moom la wut say énergie génnee Sénégal door production moom ci wàllum pétrole loole ñu koy amal fukki at gannaaw bi nga xam ne nii gis nañu pétrole bi ci atum 2014 te bu ñu sukkandikoo ci njiital Legs Africa mi di Eliman Kane bu ñu bëggee amal. ab production bu mucc ayib faaw rekk lépp jaar ci yoon. Amadou Kanté ñu wax ci contrat bi dox ci diggante Sénégal ak opérateur boobu di Woodside Energy mu mel ni nag euh, li nga xamante ni moom lañ ci war a am moom moo ci ëppale ndax téeméer boo jël am na lu toll ci euh, juróom-ñetti. Euh, fukki poñ ak ñaar Sénégal fukki poñ ak juróom-ñett ci képp la ci daal di am moo tax njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye nee na daal dina fexe ba tëggaat boobu les contrats bu gën ci gis boppam. xalaatu li man kan gën koo sori li bokk na ci daal loolee nag mën na antu fekk buñ toggee waxtaan xool naka la ñuy def ba loolee daal ñu mën ko daal di nas waaye nee na faaw rek Sénégal am ci weneen taxawaay yu yees bokk na ci wàllum koppar goo xam daana ko ca dugalaat bu fekkee bëgg na daal lépp lu ci ruusee ñu gis ci seen bopp. nga état moom état moom moo ëpp doole ñëpp moom moo am souveraineté donc euh, mën na bu ko xaalis jógee mu ne man lii bëgguma ko ma koy changé mën na ko def waaye état tamit day dox si yoon parce que bu fekkee da jàpp ne li nga ci am doyul da ko war a yokk mais yokk boobu dafa am lu mu laaj foog nga ni xaalis et cetera yu mel noonu wala euh, boo dee da ngay jël dara foog nga joxe leneen ah nga jox yeneen avantage par exemple mun naa ne da nga may yokkal fii peut-être ma jox la beneen puits fële et cetera nga et yu mel noonu donc négociation bi moom joxe jël la donc du lu ñuy imposer mais effectivement loolu lu mën a nekk la tout simplement mais am na yoo xam ne aussi mënuñu ko mais dañuy wax entreprise bi moom na def rek comme ngay liggéey kenn yow amoo xaalis nga ne ko saa jëlal charge coût yëpp ba ba ba affaire bi pare su paree après lu ñu commencé jaay ma lay delloo li si dugal donc noonu rek la demee alors donc oui xaalis la. to gis ngeen joxe nañ information que ni yoreel nañu lu tolloo quatre cent euh, trois cent milliards bor euh, yoo xam ne ni amal nañ ko déjà Woodside te loolu nag day loo xam ne ni yu doy waar euh, parce que mun na la kereel jafe-jafe. ba tey ci ay xibaar ñu wax ci ki ñu tabb sa jiital ko ci société bii di TDS di Aminata Malick Sarr moom na nekk tey ñëwoon fii ci set tv doon ñu nemmee ko itam xool ni liggéey bi di doxee. Euh, directrice générale bu 7TV di Mimi Ndour Faye daan na koy dalal ñu àddu a jëmale rek euh, ci rek li nga xam ne ni ñu ngi koy xaaree euh, TDS rawatina ci média privé yi de waaye ki ñu tabb yees soxna si itam daan na indi ay mbir yoo xam ne daal ne ñu buñ ci tënkoo bëgg na daal lépp lu mu fekk ci jafe-jafe mun koo saafara. mu nekk ab visite de courtoisie bi nga xamante ne day marqué retour fi lépp commencé ay at ginnaaw bi mu demee directrice général TDS bu bees bi daal di rek ñëwaat si biir 7TV Aminata Malick Sarr daal di rek justifier li waral mu daal di choisir bi le groupe. Euh, li nga xamante ni moom mëbët euh, suñu tànk yi ñu indi tey fii nii ci 7TV bokk na ci. ki nga xamante ni mooy euh, jëmm jii di madame Maimouna Ndour Faye nekk mag ci ñun euh, nekk benn référence euh, ñu nekkoon tamit ndongoom mën naa ko waxee noonu ndax ñëwoon nañ fi doon fi def stage mu formé ñu lu bëri jàngal ñu lu bëri li nga xamante ni tey ji xam nañ ko as tuut ci secteur média kon tey ji war nañ ko mën a ñëw gis am yaakaar tamit ci moom bu baax ci mu jàppale ñu ci suñu liggéey bi les visite nekk na occasion bi nga xamante ni directrice générale bu 7TV Maïmouna Ndour Faye daal na rek ñëwaat ci attente yi média privé yi am ci télédiffusion bu Sénégal. donc c'est une période de très difficile où beaucoup Aminata daal di xam ne ni ko xam na enjeu yi koy xaar te nag mu fas yéene relever défi yi. donte nag euh, yëngu-yëngu am na ci euh, milieu euh, ci biir presse ci milieu taskatu xibaar yi waaye am nañ yaakaar ni lépp dina saafaraw dégg nañ li nga xamante ni moom lañu dénk te jàpp nañ ni aussi am na jéego yu ñu war a mën a teg. ngir saafara lépp lu nga xamante ni rek mooy ay jafe-jafe yooyu am nañ yaakaar bu baax. ca wàllam présidente directrice générale bu groupe 3M universel Maïmouna Ndour Faye daal di rek rafetlu bile visite te nag mu daal di woo kii jiite TDS SA mu wëyal bile initiative ngir rek mën a togg ak ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu média ngir mën a rek dëgëral diggante bi. tey na ba Omar Sow njiitu réew mi ba Bassirou Diomaye fay moom nag war naa mën a woote ay waxtaan ci li nga xamante ne teg na ko muy jub jubal jubbanti loole soxal nag ñu xool bu baax koppar askan wi fu mu feti waaye itam loolee dina tax xawam am rek ak coppite gu ñu xaar ci askan wi ak ni ñuy xalaatee ni ñuy gisee yëf yi waaye tam euh, nguur gi lépp loo xam ne rek mu ngi ci nekk ci waram liggéey ak na mu koy wasaare parce que ni jote ci daal am xalaat woo xam ne dinañ ko daal di amal ci yëf yi nekk xalaat woo xam ne itam dina tax ba ñoom ñu soppi doxalin askan wi mën a dal gis seen bopp ci liggéey wi nga xam ne nguur gi nekk nekk na kenn ko bokk moomeel mën nañu jàpp ne dafa loo xam ne njaboot moo koy bokk wala benn groupe ca askan wi wala askan wi yépp bokk moomeel mën na nekk itam ay ressources naturelles service public service privé wala mu nekk itam ab société humaine boo xam ne nguur gi moo ko fi tekk ngir mu mun a doxal ci ay fànn yu bëri rawatina ci li jëm ci wàllu kaaraange ci biir réew mi ca frontière ya ba ci bitim réew bokk moomeel nag mënul ñàkk ci ab fonctionnement rawatina ci li jëm ci wàllu gouvernance des affaires publiques askan wa nag mënuñu yem ci bokk moomel ya bu fekkee ne règle maanaam ay loi yi nga xam ne teg nañu ko fii dafa am ay nit yoo xam ne dañ koy jalgati mu ne de sàmm li nga xamante ne mooy bokk moomeel yombul ndax nag dafa nekk mbir bu jafe moo xam ci wàllug social wa itam ci wàllub aada li koy firndeel mooy coow li bari nga xam ne da koy faral di indi fii ci réewum Sénégal sax bokk moomeel yi andi na ay coow yu bari bari ba tax sax ñenn ci askan wi am ci ab njaaxare ci déggin ñi ci bari ci askanuk Sénégal sax dañu jàpp ne bokk moomeel amul fenn bokk moomeel kenn moomu ko wala ñu jàpp ne nguur gi kott moo ko moom seen gis-gis googee ci bokk moomeel ak niñ koy jëfandikoo tax kon ñi ci bëri si askan wi daal léegi dañoo weddi ñenn ci kilifa yi wala ña nekk ca gox goxaat yi salte mi ñuy faral di gis moo xam ca toilette yi euh, nekk ci administration publique ci école ya ci université yi ba ci bërëb fajukaay yi dafay firnde rek am na ñoo xamante ne faale wu ñu li ñuy woowee bokk moomeel ni ñu yoree alalu askan wi itam beneen ponk la boo xam ne dafay firndeel rek ni ñu jëfandikoo alal mi nga xam ne ñépp ko bokk ger ak xaalis gi ñuy luubal lañ koy faral di dégg fii ci réewum Sénégal bari na lool moo tax jamono ji Sénégal mi nga xam ne fekk si na réew yi di produire pétrole ak gaz dafa jaaxal ñëpp li ko waral naka mu di fitna gu bëri nga xam ne nemmeeku nañu ko ci yenn ci ay réew Afrique yi nga xam ne dañ fay génnee pétrole ak gaz. waa Mauritanie tàmbali nañ seen campagne électorale ni koy bég ci guddi nga xamante ni moo fa nekk njiitu réew di Mohamed Ould Ghazouani moom nag dina jàkkaarloog euh, juróom benni doomu aadama ci guddi gi ndax euh, ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin ci li ñuy amal seen jongante njiitu réew daanaka moom njiitu réew ma juróom-benni mbër la ra jàkkaar lool ñaar ñi nag moom bokkoon nañ ca yee weesu yi nag ñoom daanaka ñu yees lañ ci jongante wi waaye jàppale ne campagne électorale bi daañu ko ndar képp ñaar ki fan ak juróom-ñaar ci weer wi ñu nekk. juróom benn ñoo daal di samp seen ndënd ci kanamu Mohamed Ould Ghazouani eh, ci élection bi nga xamante ni nag day am ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin bi ñu jëm ñaar rek ñoo ci gën a fës ndaxte bokkoon nañ eh, ci élection yi jàll Biram Da Abeid ak Mohamed lemin El Wafi ki ci njëkk nag eh, ñëpp daal di koy xàmmee ci xeex gu am solo gi muy xeex ngir nit ñu ñuul ña fa nekk ñu koy duppee Mandela bu Mauritanie mu daal di am juróom fukki at ak juróom-ñeent moom nag njiitalu initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste mooy njiitu euh, kujje politique bi keneen ki di Mohamed Lemine El Wavi moom nag nekk ab fonctionnaire ca trésor public bokkoon ci élection yu 2019 naam nag ñu bari xamuñu ko woon bile yoon nag ak programme bi mu jëmmal mu daal di koy tënk ci juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent poñ ngir yeesal xar kanamu Mauritanie ñeneen ñi nekk ñu nekk ay gan ki ci njëkk nag di teewal parti bi jiitu bu kujje politique bi maanaam parti islamiste bu Tawassul Ahmadi Ould Sidel Mokhtar nekk njiitalu parti d'opposition euh, ca parlement ba ba ñu légaliser seen parti ba léegi nag mos ñoo bokk ci ab jongante layookat itam député bu coalition Fruid Id Ould Mouhamadine nekkoon surprise ci élection législative yu mai 2023 yi ñu génn ndaxte coalition bi moo nekk deuxième ci assemblée nationale ngir gañe xolu ak xobu mauritanien yi ñoo xamal ni dinañ amal ay coppite yu yees kii nag nekk ab neurochirurgien nekk itam ab professeur hospitalo universitaire Outouma Soumaré daal di ñëw soobu ci politique mu bokk ci directoire ONG aide aux malades indigènes ba léegi mébétam moo di ci gis-gisam mu daal di soppi xar kanamu magistrature suprême bi keneen ki mujj ci liste bi moo di Mamadou Bokar moom nag nekk candidat bu formation AJD ñu daal koy xam di ko méngale itam ak candidat bi nga xamante ni nag ni dara soppeeku ko wucci lu ëpp ñaar fukki at ak juróom la nekk ab dawlaqu ca France moom nag li mu bëgg lenn la rek moo di ñu yemale ñëpp élection yi ay fan rek moo ci daal di des ñu bari nag seeni tiitaange moo di élection yi bañ a jaar yoon ba tey ci ay euh, xibaar ñu wax nag euh, ci euh, waa ñu nga xamante ni ñu ngi naqarlu bu baax li mu doomu aadama yi nga xamante ni ñu leen di faral di jële ci seen dëkkuwaay yóbbu leen ci yeneen i dëkkuwaay loo xamante ni du seen coobare nee nañ daal ci njeextalu weeru avril bi lu toll ci téeméer ak ñaax fukki mu doomu aadama lañ ci wañ wàññi. ci weeru décembre euh, gële jàppale ne daal lu tolloon ci euh, téeméeri million ak fukk ak ñett tombal euh, daanaka ñett ci ñoom daal nañu rek daw làqu ci ni réew daanaka yokkute gi daal ci at wu yàlla sàkk di ci fukki million doomu jàpp ne daal ci fukki at yeeg ñaari ñuy weesu yokkute gi daal day am at bu yàlla sàkk. ma ca Niger foofee nga xamante ni kilifa yi ci juróom-ñaari fan ci weeru juin lañu rek fexe. ba delloo si li nga xamante ni mooy penn jëm nag eh, ci ñi nga xamante ni dañ leen di eh, tëj ñu def eh, li nga xamante ni mooy diffamation di wax loo xamante ni tegul ci yoon wala sax ay mbir yoo xamante ni ci xarala yu yees yi dañ koy jaarale. loo xam ne kuréelu société civile yi daal lañ koy boolantoo ñaawlu jàpp ne daal du dëggu yoon day gàllankoor nag lépp lu jëm ci wàllum liberté de presse jeexalee ak xibaaru tàggat yaram wax ci waa jaraaf ñi nga xamante ni kon duñu jongante final coupe du Sénégal saison bi mi nga xamante ni euh, kon académie Ferry bu football moom moo jël boobule dogal te sax demoon nañ ca euh, tiro bu def 0-0 ci stade Albouri Ndiaye bu Louga. jeexee fukki juróomi bal ci ñett jàppale na nag mu nekk rek xew-xew bu rek màgg lool ci waa ADF mi nga xam ne ni euh, club division régionale bi nag mooy kuleet mu fas ne tab bi ci jongante gu mag kooku. naaw jogante bu met diggante ADF bu luga ak ASC Jaraaf bu Dakar ci demi final coupe du Sénégal bu ñu doon amal fii si diwaanu Louga. ci stade Albouri Ndiaye a 2 dina jël ndam li gannaaw ba nu demee série de penalty mu nekk nag ndam lu am solo ba tax Louga yëpp génnoon dooleel seenu njoñ ñu teew lu kàddu yi coach bi. tey mbégte contentement vraiment lu may yëg li may yëg mënuma ko déterminer parce que xalaatewuñu woon xale yi dana nekk ba fii. surprise la parce que euh, ku ne jaraaf xam ni jaraaf du du ndaw c'est une bu mag la. boo demee ba gagné ñooñu moom day am mbetteel bu rëy rëy ngay am. mais lépp di ko sant yàlla rek te xam ni liggéey rek mooy fay. di remercier tout le monde tout tout le peuple Lougata parce que bay ADSF commencé football ba léegi. mosuñu gis taxawaay bu ñu taxawaayee fii. A2F nekk di amal jaloore yu am solo fii si diwaanu Louga. ñun liggéey ci sérieux jub yaatu dënn mooy andi résultat yu baax. ko approprié parce que A2F tey mënoon ni fii la bokk. tey fan ngay cité a amul. à part le amul feneen parce que ñëpp a ci bokk. loolu bi. Louga aussi gëm ni buñ poussé à def dina dem euh. parce que dana war a jom tax tey Louga ñëpp ñëw euh, jàpp ci ñu euh, delluwaat encore di leen remercier bu baax coupe du Sénégal bi yàlla mën naa def ñu gagné ko comme ni ce que disent les jeunes ku ñëw da nga ñam ñu qualifié final coupe Sénégal tey jii nag doomu Louga yëpp noppi naan ngir doolee seen njaboot gi di A2F ngir ñu jël coupe du Sénégal bi la kon mbokk yi fi ne yem ak yéen ci la jotaayu xibaar di leen jaajëfal bu baax ci seen teewlu ak seen kóolute Suzanne Deme may am mbégte doon fekk yow ci la jotaayu xibaar. amoon naa mbégte jën ak yow Jamil Diouf jaajëfal itam ñu doon teewlu. xibaar yi ci kanam la ñuy dellu si bu juróom-ñetti waxtu jotee ci kàllaamay nasaraan di ci fekk Tabara Diop léegi léegi Mamadou Aw Ndiaye ngeen di àndal ak gan 7TV ñu di ciy dalal professeur Babacar yooyu leen di ñu